mooy sama wasila. macha allah waaw ndax Serigne Abdou. Euh, maa ngi wax sax Tidiane xaw ma sànq ne ko na ngeen fexe ba jël si nag tafsir yi ca Thiès. ca kër Al Amin ndax fa laay tafsiré. te góor gi ma fa tegoon te sëñ Moustapha moo ko tamponné waat tey xam nga sëñ Moustapha. dafa dëggu. dafa fegu dafa sell. waaw sëñ Moustapha. dafa dëggu. man de lu ma wax ak moom bu ca àndul ma bàyyi wax dëgg yàlla wallahi alazim nag lu ma lu ma wax ak moom bu ca àndul hmm. ma teg ca suuf gëm naa ne nag lu mu ma ne baax na rek day baax xamul tax hmm. nee naa ko bërki démb sa discours bi ci ziar bi hmm. defar nga jaboot njaboot gi yëpp wallaay ndax jox nga cër xalifa bi delloo nga ko lépp wallaay dëgg te loolu la xam moo tax mu jox la ko ni sëñ Babacar xoncee sëñ Abdou teg ko ci daara ji noonu la sëñ Moustapha nangoo bàyyi école am ak lépp toog ci daara ji yàllaa ñu boole nag muy suñu sëriñ waxuma mag de mhm. ñun mag ñoruñu wallaay ndax kër gi sama papa moo la doom laa fi du ma fi taalibe doom laa fi ñu bala ba xam foo jëm ak sa doom ñun ay taalibe lañu matuñu sax taalibe wax naa ko as taalibe lañu waaw ah, dañuy ñaan yàlla doon ay taalibe dañuy daan ñaan doon ay taalibe doon ay taalibe xam naa ne ku yéeme la dafa am loo xam ne bëgguma ko wax sama ñëw bii fii yéeme na daal ndax kàddu bi ma wax bërki démb naam mhm. yéeme bu ko defee ñu nuyu ko nuyu man nag yàlla def na euh, ñëppay samay xarit mhm. sama nijaay yëppay samay xarit sama mag yëppay samay xarit sama bàjjen yëppay samay xarit mhm. waaye nag sëriñ Abdoul Al Amine dama koy ñaanal bu baax ndax 2006 la ma teg carrière ne ma tafsiral am na ku may laaj sànq ndax mës na fekk sa tafsir ma ne ko ñëw na bett ma ma tafsir ba très 14 15 heures mu ne ma dégg naa li ma dégg doy na ma sëggal ci téere yi ba mu fi jógee ba léegi nag taawam Babacar sëñ Babacar ak sëñ Moustapha ak Sidi Ahmed ñu ngi koy nuyu ndax Sidi moom la sëñ Abdou waxoon boole naa la ak Habib ci daara ji lu xew ci daara ji moo koy tëj si